friend on the beat. laa teg sama téléphone. ma bàyyi ma ko marché. lama ci torop na ma lama torop nga xam ne kër gi kër gi génn kilifa bi am mu la oon ñaan waaw man yow du ma si neexalaate du ma si neexalaate du ma si neexal kenn def ni démb xam naa ne loo borom ma yaay sax ma attaqué ka accéléré ko fii la ma tëb am amoo ka dimbali ma waaye amoo rek waaw damaa bëggoon ñu waxtaan nag amoo rek mën naa toog. waaw toogal. xëy ma taxaw sax ndax damay togg añ gisoo ni may toggee nii tey nag moo moom nii jonga ma naa de ah amoo rek. mënuñoo xuloon nag xam naa ne yaa nekk ci dëgg dégg moom dëgg rek nga wax dëgg kese képp donc démb moom yaa nekkoon ci dëgg nag waaye xam nga rek ay jigéen lañu dañuy juum sa ah? nga waaw loolu lépp. xam nga ne ba man na man yaa ngi sañ see. ah ma démb torop sax man mënumaa nekk fii si kër bi doon sa kilifa ba pare wu taxaw fii nag kontaan sa yaay toog yi na xul yi loolu yoon ah te kii max bàyyam dana yàgg ay wóor la ba ma ko gaañoon fi mu wax ko baayam du ma neexu ko baayam ndekete yooyu yéen a indi seytaane si dala war a bàyyi. Ah, man ngay jàpp rek moo ay mis yu. man nag 2000 rek la ma fi yore nag bëgg naa ni koppar trop. fii papa man moo jël ay 2000 de 2000 rek la ma fi yore. teel ah, ah. <laughs> nii. dama jëli kuddu yi. ah si kanam nga jox ma 8000. lii lan la nii. ma am naa ma am naa géeju kaw. xarit da yaram ma ngi naan sukukukuku la daw. laa si def. ree ya bon laa yor aw. eh eh eh waay aw kaay nii waay ah. dama dend ak sa papa kay toog yi sama wet. moom nag dafa am ah. jël wala kuddu. ah bàyyi ma jël loxo. déedéet jëlal kuddu bi jaay. ndax sa loxo ah bàyyi ma jël kuddu. ku si xol bi. bi loxo la maa jël aw am.

raxasul nañ raxasul nañu ak saabu laal gel ngeen gel waaw. ok ayca bisimilah. bisimilah ñu añ. bàyyi mu eh papa wax ko bu mu dugg. yaram sa doom ji. su sexee rek duma lekk. aw pirip lool. ah. réewal nga xale bi nag. saaraay. saaraay añ bi. eh. yow na nga rek la. eh amul rek nag dëgg la wax. aw ma laa toog seen kër taalu bi ma ah lii la la ni. ay yéen seen ab sëriñ xanaa xanaa amul si ndimbal gi. boo tëmb dëkk bee saraay saraara biraanaan eh nun du ma war a biraanaan de. taalibe kaay ma def ba ma fontoo de ko joxe. Eh, yaay bi. ba pare papa yow ñu ngi maye saaku ceeb ak diwlin ak cinquante mille si dëkk bi yëpp. waaw ki fa mu jëm. ba amulee la mu añee mu dem toog. nijaay nag soxor nga nag. dama soxor. da nga soxor moom. barki démb daa ma wàcce lal bi ndax virus bi kii mën na virus dugal ko. eh kaa bi. eh sëbiti doxal bu dee sam sëriñ on ñaaga ma dàq. kii sax daal mbirimul taalibe sàcc yàlla ci li ngay def nijaay. am naa jot. père père am naa jot père jàmm man jàmm moo fi indi am naa jot jàmm moo fi indi. démb dóor nga ma palaat sama bopp ba léegi mu ngi riir. ay bébé baal kay ay ñëwal. sama papa moom moo yónni. affaire de ceeb ah, ah, ah. père déglu ma déglu ma déglu ma. mais déglu ko sama papa moom moo yónni. ceeb bi ñuy séddale ñëw na ñu ngi fële buuru gi. ah <laughs> kay la ñëw kaay kaay kaay kaay. ñëwal toogal xam naa ne yii foon naa toogal. eh awal mi. maa laa nga seet ci laa nga seet. xar yi lay yuuxu ma leen doon dimbali. iris bi du leen topp. may la taxaar sama goro yi moom dañ koy tere saafonte bi lañ war a bàyyi bàyyi leen saafonte bi. nga xam ne yéen sa lii rek moo ñuy jotale doo bàyyi yi ngay jàpp ko xaañ sama añ ah maa añ wala añu añ wala añu la. waaw dama ah. waaw joxal bool. après. moom de xam naa dafa fër. nijaay daa fiix ndeysaan. nijaay jóg. ceeb bi day ko war a séddal teg ko si yow. ba ceeb bee sam papa neen yow lay xaar. rax na nag. aw ñibbee gu laa ba tey. nu muy ñibbee yow lay xaar sànq ba léegi sam papa nee na bu ma la fa bàyyi yow ñu dem loolu la mu wax. ah mu ne ñun ñaar ñu ànd. père yow lay xaar de. bopp yu doo jug yëpp ñu la wax jugal dem gaaw ki yow lay xaar. soo ñëw nag bul eh. papa papa li jëntiwaale lu huit mille li ma war a jox. waaw huit mille waaw. demal demal demal gaaw. yéen ba tax ceeb bi moo egg si wala. papa comme yow eh, ceeb bi sama papa nee na sama papa nee doo dem. buy ma dossier bu dégg nga. yow boo paree na nga ñibbi nag dégg nga. bon nuyu. ay tuuru géej ga. li gën dëkkandu géej. parce que waaw fi mu toll nii waaw fi mu nga lan la tax xaalis te mu bëgg a xaalis. jéem bee ko teree tubaab su la rombee sax xool xool ni su la rombee sax dina gis. dama dem géej ak sama tubay bu rëy bii de. may changé waaw su la ah a maa ngi nii rek. alhamdulilah alhamdulilah. laay mu. maa ngee daw rek. waaye loolaa daw loolooy daw lan la. lu ay yu ma fekk kër ga ne ma papa woon ñaa nga ma ne ko ah mu ne ceeb bi ñëw na rek ma dem <laughs> sa tur mi ngi fii ni mu mënee fen basa nag la non bu wax dafa mën fen dama nga bëgg nga am ceeb moo tax ma woo waaw parce que sa tur a fii moo tax ma woo la loolu laa la doon doyee ñaati saako la nu am nu recensement bi non saako yi bi nu mu toll mais am non jarul jooy jarul jooy jarul jooy jarul jooy te tur yi fii te di nga am jarul jooy jarul jooy ñaati saako la ma am on ñàng on ñàng yoo xam nga sama xarit nga ku nekk roon am ñaar saaku ñaari saaku ceeb mais yow naa la defal teranga jox la juróomi saaku ceeb non baal jooy baal jooy baal jooy looy jooy looy jooy baal jooy baal jooy ndeysaan xol bee gaaw a sedd nag baal jooy baal jooy baal jooy baal jooy maa ngaa dem dégg naa waaw demal kër ga incha allah bu neex yàlla di si ñaata laa juróom juróom non jarul jooy baal jooy baal jooy bi ñëw na ceeb bi ñëw na. man dama bëgg jëmm wala duma bëgg waaru.